Ah. man maa ngi tudd Mariama Sy man maay présidente euh, fédération bu commune Adéane Refeka maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di am mbégte lool tey ci journée internationale de de l'arbre di sant aussi gouvernement bu bees bi nga xam ne tey moom moo organiser lii ba ñu bañ ci mën a xej ñun aussi di remercier aussi mairie bi parce que aussi ñoom aussi boole nañ ci di di remercier aussi sous-préfet bi nga xam ne tey moom tamit bokk na si ñi nga xam ne ñoo jëmbat di ñaan yàlla yàlla garab yi meññ ak jàmm ba ñu lekk seen njëriñ eh, di ñaanal aussi Refeka beneen yoon bu ñu fi dellu soité fekk ay étage ñoo fi taxaw vraiment jigéen ñi jàmbaar lañu te ku leen dooleel ku nekk dooleel nga askan bi yëpp ndax ñoom dooleel leen mooy maanaam yëkkati àddina ci kaw ca kanam. Euh, dama ne jigéen ñi nañu gën a takku parce que jigéen ñi moom dañoo yàgg tàkku mais nañu gën a boole seen xol yi ñu doon benn euh, ndax euh, ñu seen seen am-am ak seen seen pas-pas bu ñu ko yokkee tuuti rek dinañu dem ba ñu tudd sax jigéen bi nga xam ne tey nekk na président de la république ñu suudewu ñu jàppante lépp lu ñuy def nañ ci boole engagement ak détermination loolu dina tax ñu jëm kanam jigéen bu ñu bàyyi benn yoon góor ñi di leen utiliser nañu taxaw ñu xam ne ne lu góor man man jigéen mën na ko ndax ñaari loxoy takk sër ñaari loxoy takk tubéy